Abdoulaye Fane maa ngi lay nuyu. Mm-hmm. ñu ngi lay sant Ndeye Comba. Abdoulaye Fane nga jiite Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal déjà sa mm-hmm. appréciation ci lauréat yu concours général 2024. Mm-hmm. dañu ciy bëgg ren ndaxte seetlu nañu ne euh, na euh, vraiment euh, yokk na ci wàllu résultat yi vraiment di ko rafetlu bu baax a baax a baax. te li ko indi lenn du dul lenn lu dul euh, école bi dafa dal ren ba tax nag njàngam ak njàng mi ñëpp ba mention yi yokku na te aussi nombre dat yi aussi ci examen yi nga xam ne ñu génn nañu yëpp daal euh, jaar na ci yoon hmm. est-ce que aussi ñu gis ni euh, jigéen ñi am nañ fa place bu baax a baax est-ce que mën nañu compter ci jigéen ñi pour relever défi yi surtout ci wàllu matière scientifique yi. waaw jigéen ñi moom dañ leen di wax waaw kumba rek waaw vraiment ne leen di gàcce ngalaama ndaxte bu ngeen ko seetee at yi yëpp ci wàllu examen yi am yëpp daanaka ci réew mi fépp fu jongante amee dañuy am ndam par rapport ak góor ñi te defe naa ne euh, loolu aussi ab liggéey boo xam ne bii am na structure bu ñuy wooyee SCOFI mooy ñooñu nga xam ne ñii dañoo jóg pour fexe ba njàngam ak njàngale jigéen ñi dal di ci mën a bénéficier au même titre que garçon yi de ta résultat yooyu feeñ na ci donc ñu ngi leen di gërëm di leen féliciter di leen sant par rapport ak situation boobu donc euh, espérant que quand euh, ñu euh, ay filières scientifiques yu leen permettre quand ñu mën a gën a performer te defe naa noonu loolu ay euh, mandarga yi wane ne réew mi quand euh, amul xàjj ak seen muy jigéen ak góor yëpp ku nekk war nga mën a jiite. war a nga war nga am eh, ndam yoo xam ne ci njàng na njàng mi te mhm. euh, lu soxal aussi wàllum euh, euh, muuru bi maanaam le port du voile ci établissement scolaire yi dégg nga autorité étatique yi liñ ñu si wax nee nañ dinañ xar seen tànk tubay ba lu mel noonu du am fii du am amati fii Sénégal naka nga gisee mbir moomu. loolu dañ ci kontaan bu baax ndax bu ngeen ko seetloo war na def ay ñett ba ñeenti at amoon na benn école privée boo xam ne bii dafa tere woon xale bu jigéen boo xam ne bii day muuru te bu ñu nee muuru daanaka dañuy wax wàllu diine te nag dañu nekk ci réew moo xam ne wàllu askan ak wàllu diine ak ay xar baax boo di compter dañ ko war a dindi ci réew mi fii égalité moo fi am équité waaw kiy pratiquer ak ki dul pratiquer yëpp dama amee droit. noonu la moroomam amee droit mën nañu comprendre nag ay doxaleen dañ ñëw ubbi seen école ci sunum réew dal di ne lii dañ ko fiy def par force te suñuy doom war a dem di jànge foofu parce que ñooñu may wax muy tubaab yi France boo demee fee seenum réew demoon nañu ba sooroor yi ñuy wax minare dañ koy interdit woon ci yenn quartier yi mais ñoom am nañu sañ-sañ boobu parce que seen réew la lu tax nag ñoom loolu ñuy tere fu loolu nga xam dañ koy interdit fee ñoom ñu ñëw seen école yi nga xam ne yi seen école programme français la ñu ne alors euh, dañ koy tere waaye nag comme ni ma ko waxee woon ñun ñoo tooñ suñu bopp bu fekkee da nga dem jéggaat yi te say say école ne fi defe naa ne foofu loolu la fa dalit ah yow yaa wàlli waa noonu waaw léegi nag mooy nañu def de telle sorte suñu école publique yi ak suñu école privée laïque yi mën a am vraiment qualité ci enseignement bi yëpp ba nga xam ne képp ku bëgg a jël sa doom di ko jàngalee da bëgg da nga bëgg mu jàng nga dañ ko yóbbu foofu. Mm-hmm. waaw waaye nag euh, vraiment ñu ngi saluer mesure bi waaye mesure bi li am solo mooy nañ ko mandargaal ak pay taxe bu ñu bind envoyé ko inspection bi inspection de l'éducation directeur yëpp bu ko defee ñu mën ko appliquer particulièrement école yooyu nga xam ne yi dañ leen ciblé woon ñoom ñoo doon def loolu te nag ñun taxaw nañu fépp fu ñu gis kuy def loo xam ne lii dafa saafante ak loolu ñu nga xam ne mesure boobu moom la gouvernement bi jël dinañ ko wax dénoncé ko bu ko defee état bi na jël ay responsabilités parce que moom moo ko waxoon. Mhm. Euh, gis ne aussi jëlee fi abri provisoire fii leeg atum euh, deux mille trente bokk na si lu soxal régime bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye loo si mën a wax. ñun xalaat nañ ne mën na nekk mën na nekk parce que aussi am na lenn loo xam ne nii dañ koy dul faral di wax mbaar yooyu nga xam ne yi moom la ab abri provisoire ña ko tabax ña ko defar ñu ci bari ay wéyjuru ndongo lañu il faut que loolu aussi dal di koy xam parce que da nekk ci dëkk mu leer leen sa doom yi bu fekkee ne tam wutaloo leen classe ñu jàngee fa ca ca dëkk ba dañuy obligé dal di dem beneen dëkk mën na doon mu am ay fukki kilomètres wala euh, lu topp pour dem di fa jànge te loolu aussi day metti ci ñoom moo tax wéyjur yi généralement ñoom ñooy euh, def abri provisoire yooyu Mm. donc man je préfère ñu dal di defar ay abri provisoire xale yi commencé jàng après ñu dañu ko def comme que ay classe en ligne fii nag mooy fii ak juróom-benni at war na mën a nekk waaye nag nañ ko liggéey de manière concertée boole ci ñi nga xam ne ñi ñoom ñooñ ko contribution parents yi mu ngi fi ak népp nga xam ne ñi yàlla may na leen wërsëg te ñu dal di dëkk ci yenn gox-goxaan yi am teraanga nekk Dakar wala bitim réew je crois que bu fekkee def nañ ko ci de manière inclusive dina permettre ñeneen ressource de financement yoo xam ne yu sax foogewuñu ko dina ñëw dal di ci man mën na nekk waaye nag aussi bu fekkee ne tabax nañu euh, ab classe nañu koy bind mu dal di leer ne bërëb sàngam tabax nañ fa classe ainsi de suite mais bu ñu ñëwee rek dal def ay programme naan defar nañu temps de classe def temps de mur temps de toilette ak yooyu te te te te te préciser wuñu fan lañ ko defee ak nombre ba yenn saa yi day poser problème waaw donc loolu ànd nañ ci waaye daal comme ni mu ko waxee nañ dem approche inclusive fexe ba programme boobu ñu boole ci waajuru ndongo yi ak donateur yi nga xam ne ñu ngi dëkk seen gox-goxaan yi dañ di mën a nekk ci comité de suivi bi bu amee un de surveillance bu mën a geree loolu defe naa dina mën a permettre xale yi vraiment euh, ñu war a mën a Euh, en voilà ñu gis ne lauréat ñu si bari aussi euh, ñu ngi bokk ci école publique bi euh, yow naka nga gisee excellence boobu ci publique bi malgré jafe-jafe yi contrainte ak mauvaise condition d'études yi nga xam ni moo am si école publique sénégalaise te terewul prix d'excellence yi su ñëwee ñu am ci. léegi ku tontu nga sax ci laaj bi ah. mm-hmm. parce que bu dee ab xarañ rek xarañ. jàngalekat yi nekk ci école privée yi macha allah formation bi baax na parce que léegi à partir du baccalauréat la ñuy te même pour ñu dal li lay recruter sax test yi dafa métti ba tax ne généralement jàngalekat bi bu génnee ci CRP rek am na niveau bu baax waaye nag comme li nga wax léegi condition yi environnement bi moom mooy indi jafe-jafe yi da ngay xëy ci lu mat juróom-ñetti juróom-ñetti fukki fukki fukki dongo quatre-vingts élèves minimum table banc yi matul classe bi dafa tàng toilette amul matériel pédagogique bi des kaye ainsi ak ainsi mais loolu loo mën a jàngale jàngale mënoo ak environnement boobu nga dal di mën a def ay performance donc je que levier yooyu bu fekkee ne agir lañ ci ba pare boole ci leneen loo xam ne lii moom mooy lépp moom mooy jàmma ci waaw li ñu seetlu mooy ñaari at yi depuis bi ñu signé accord yi ak avancé yi ñu def parce que ministre bi temps yi passé am na ay ay arrêté yu mu signé par rapport au reclassement euh, instauré yooyu indi na jàmb ni indi na indi gum na jàmb mm-hmm. defe naa ne loolu bu fekkee ne sukkandiku dañu ci rek ba jàmb jooju am fii ak lii ma wax léegi dina mën a permettre école publique dal di dellu kon parce que ñun ba ñu nekkee tout tànk ñun école gàcce moo doon nga dal di dem école privée parce que les meilleurs élèves yi nga xam ne ñoom ñoo doon ci Sénégal ci école publique la ñuy génne donc je que bu ñu demee nag ba tendance boobu dal di inversé wu loolu dal di ñëwaat ah en tout cas day dañuy la dañ koy rafetlu d'autant plus que plus de trois quarts des élèves du Sénégal plus de trois quarts ñëpp ci école publique la ñuy jànge voilà Euh, beneen laaj aussi ñu gis ni la euh, l'année prochaine dinañ introduir anglais bi ci système éducatif bi dès l'élémentaire maanaam école élémentaire naka nga gisee euh, initiative état du Sénégal ci côté boobu. ñi ko rafetlu rek waaye nag dañ leen di xaar ci jëf ji ndaxte déclaration bi am na solo waaye nag li koy firndeel moom la xaar liñ naan ci tubaab bilinguisme dañ koy yéex def am na réew yu bari sax yoo xam ne yi comme ay Rwanda Gabon léegi jël nañu ba dal jël seen langue bu nation ci officiel def ko def ko anglais te boo ko seetloo réew yi gën a développé ci àddina bi anglais la ñuy làkk donc euh, dinañ ko rafet lu waaye nag liñ ci xaw a am njàqare rek mooy euh, quand même dal di ne dañ koy appliqué déwén wala wala wala après déwén fii ak ñaari at dina xaw a jafe parce que am na yeneen yoo xam ne war nañ ko seet. parce que bu fekkee ne da ngay bëgg a dëggal anglais soit nga dal di jël ay jàngalekat yuy def jàngale anglais comme bi wala nga dal di renforcer capacité wu jàngalekat boobu bu mën a def anglais nga aménager aussi emploi du temps bi ak curriculum bi bu ko defee ma mën ci faj fajal anglais fexe aussi que programme boobu buy touché même ay Fuuta Kédougou ak dëkk yi ci wër Salimata Saare ak yëpp. fépp ñu dal di kay commencé lu ko mooy bu fekkee dañoo am ni ñu jagleel loolu rek bàyyi yeneen ñi nga xam ne nii dañu nekk ci yenn gox goxaan yi dafay indi iniquité te defe naa ne euh, programme paquet boobu ñuy wax équité yemale moom la dal di jël di koy boole ci cëslaayam donc euh, je crois que loolu bu ko defee euh, dana dana mën a waaye dal ko def ci ñaari at ñetti at mm. man je pense que ce sera un peu difficile il faut pas aller vite en besogne nañ ci waxtaan réfléchir si. Mhm. Euh, dernière question moom mooy gis nañ examen ren yi euh, muy bac ak BFEM cas tricherie bari na trop euh, lan la ñu mën a def pour mën a bañ a dundaat même situation bi année prochaine. xam nga man postulat ma teg rek moom mooy tricher égal voler sàcc ndaxte loo xam ne ni depuis ren def nañ fukki at ñaar. ñu defoon benn circulaire ak arrêté bind ko fépp mel ne ku tricher ci ku jël sax matériel bu mel ni portable ñu koy dugal ci centre wala ci classe dañ la war a euh, sanctionné ah deux deux mille ba léegi te ci convocation bu nekk dañ ci ci bind mu leet nañ kuy dugg ci école waroo yóbbu matériel boobu léegi nag ku ko defit lan la ci topp ci ci daan nangu ko nangu ko c'est très simple ñun nag ñun on a été très clair au début du ñu def benn intervention ay conseil de discipline ak yooyu il faut que Sénégal ñu dal di bàyyi xel ne am na yoo xam ne buñ ko waxee boo ko defee lan la tey fekk nangu ko waaw loolu daal eh, ñun eh, ci loolu ànd nañ ci baax a baax a baax waaye nag dafa yomb trop ñu ne nii rek ñu naan alors il faut être clément dañu bàyyi ainsi de suite mais dem ba instaurer une république de de de de de la tricherie te loolu baaxul ndaxte ñii ëllëg si ñoom ñoo yore sunum réew te nag war nañ leen teg ci yoon pour ëllëg lu ñuy def ñi dal koy teg te lu ñu am ci ay diplôme ak am njàng mu leer dañ koo ñàkk dañ ko mérité voilà. voilà euh, jërëjëf Abdoulaye Fane ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. voilà jërëjëf Ndeye Comba. may fàttali ni Abdoulaye Fane yaa jiite UNAPES di Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal jërëjëf.